ñu la ci xibaar yi Karim Wade Mbaye Jacques Diop ci xibaar war jaar ci kanamu attekat yi tey ñu leen di déglu déglu gi kon ñeel kilifa yi woon yu nguur ak Sénégal ñu koy wéyal ci seen i am-am bokk na it la ñuy yëddu jëmee ci ñoom ku ci mel ni Karim Wade mbiram jet privé am Souleymane Ndéné Ndiaye moom la mu leeral eh, ci bu teel mooy ni eh, lankute wuy ji yoon waaye na fekk ñu taxawal ko eh, penc moomee ci anami yoon jaarale ko ci kon li nga xamante ni mooy dara jaam ne premier ministre ba woon du ay gendarmerie ki police waaye bu nu ko bëggee haute cour de justice la ñu ne bépp sitoyen mu daal di ca wuy ji waaye mu fekk ëtt boobee assemblée nationale it ni ko yoon waxee daal di ko euh, sànc waa APR Tiwaawoon ñoom la ñu bëgg mooy ak wéyal ñeel yooyu auditeur ndar di dalal dalali gan président Macky Sall ak mbooloom gouvernement premier euh, conseil des ministres bu nuy yaatal ci diwaan yi ndara koy dalal alxamis ji moo waral service protocole président sa nga fa woon démb ngir rek waajal gi ci yu mujj mairie waaye ak coow la ba tey ak kii di Oumar Thiam ma dugaloon kalaame gi niilal ku Cheikh Sarr ne maire ba euh, moo njort rek dox yi nu ministre intérieur politique lalu ca ndax boobaak léegi sunu mu daal di yëglu moom jëwriñ ji ngir kon amal jongante yeneen gëstu bi tey ñu ngi ko jagleel wàllu ndox ndox mu sell ci askan weeg jafe-jafe yi ci gox yu bari am ngir jot ca ndox moomee donte directeur général SDE Mamadou Dia xel mu dal ak yaakaar la ci am moo ne woon gan ak grand jury RFM tàggat yaram Malal Junior Diagne njàngat li ci wàllu caada Georges Déthié Diop en classe El Hadji jeen Diène Mamadou Mouhamed Ndiaye ci yéenekaay yi bu nu noppee rek mbokk yi seen émission xalaas ak Mouhamed Ndiaye ak Malal Junior Diagne Abdoulaye Diop ci technique bi RFM xibaaru suba. Assane. RFM moo ngi Ndakaaru Médina rue 15 angle Corniche immeuble El Hadj Eliman Ndour ñu dooree xibaar yi wàllu déglu gi wéy ñeel kilifa yowoon yu Sénégal ci wàllu kon yoon tey jile ci xibaar bokk na ci ñu cay teew Karim Wade ci kanamu waa brigade recherche gendarmerie Colobane site bi yëngu ci wàllu xibaar di Dakaractu xam leen ni bokk na ci la nuy sàkku ci moom nay leeral lu jëm ci wàllu jet privé moom ministre ba woon yoroon énergie infrastructure ak wàllu transport aérien mbay Jacques Diop jiite woon ni jamono CRAES dina wuy ji suba tey jile 8 jàpp 9h ci kanamu division investigation criminelle Souleymane Ndéné Ndiaye lankute wuy ji de waaye na fekk ñu jaarale ko ci yoon mu ne premier ministre la woon kon haute cour de justice rek euh, bu dee sàkku nañ ko ci moom mooy ëtt bi ko war a déglu du gendarmerie ak yeneen lu jëm ci wàllu kees yi état bi nguur gi falu ne fekku ca dara dërëm amu ca ci yooyu wax mu ne Souleymane Ndéné Ndiaye ak Babacar Fall. dama nekkoon premier ministre ci loolu nekk ci réew moo xam ne dañ naan état de droit la. wala un premier ministre di koy déférer gendarmerie wala un président de sénat man xaw ma ñu ban ñàkk fayda moo leen dugg ba ñu dem di nangu ay convocation sénat amuñu Pape Diop dafa am immunité amul droit parce que loolu aussi nasaxal yoon la nasaxal état de droit la. kon ku la woo gendarmerie doo dem. jamais de la vie man kenn du ma benn gendarme du ko def par contre bu ñu nee mettre nañu en place haute cour de justice ñu soxla ma fu ñu ma soxla danaa dem. coow li sax bu weesoo audit xool ku ne la nga yoroon na nga ko yoree am na itam leneen lu ñu wax mooy cour de répression de l'enrichissement illicite maanaam ñu ñu njort ni seen alal euh, lewut ñu topp leen yow tey jii ci wàllu woowu itam euh, jàpp nga ni waruñ la ca euh, seet. non non man cour de répression de l'enrichissement illicite mënuma mënuma seet man haute cour de justice moom mën a seet haute cour moom bu ñu ko mettre en place convoqué ma danaa dem. fan fan nga teg loolu. non parce que loolu droit la que état di conformer wu au droit. yaakaar naa loolu moom dañ ko wax nii rek pour euh, am lu ñu teg ci loxoy sénégal yi parce que euh, euh, bàyyiwuñ dara ci nguur gi yaakaar naa ku xam ni état di fonctionner doo ko wax ndax xam nga budget wu état bi nga xam ne dañ ko voté assemblée nationale daaw du alal joo xam ne dañ koy jël rek def ko ci coffre-fort jox ministre des finance Amadou Kane weer wu dee rek mu am lu mu ci génne joxe pour ñu dépenser ko budget bu état demewul noonu budget bi dañu xayma li nga xam ne. moom mooy koppar yi nga xam ne mën nañ koo am douane di ko dugal impôt domaine di ko dugal yeneen euh, kuréel yoo xam ne aussi ñu ngi dugal xaalis di ko dugal licence de pêche yooyu ñuy wax euh, di ko dugal euh, ci wet gi ñu ne xaalis bii dugg nii lañ ko bëgg a jaayee dugal ci plan takkal dugal ci salaire fonctionnaire yi dugal ci yeneen engagement yi nga xam ne yëpp Sénégal jël na ko donc ñu fiy jógee ci mois d' avril bi Abdoulaye Diop ministre de finance bi fi nekkoon ak Abdoulaye Diop ministre du budget bi fi nekkoon doon passé service monsieur Amadou kan donc ba ñuy passé wante service def nañu li nga xam ne euh, moom la agent yi di def état en tout cas ministère des finances weer wu dekk douane bu dugalee xaalis oui euh, euh, impôt domaine dugal xaalis xaalis booba la ñuy xayma xool ndax dina mën a am lu luñ ci jël fay ci salaire yi fonctionnaires yi li ñu ciy jël dugal ko ci plan tàkkal jënd ci gasoil beeg yooyu ak yeneen dépenses yi nga xam ne ñu koy def yëpp donc mënuñu ne ba ñuy dem bàyyiwuñ fa dara ça c'est pas vrai loolu amul Ndeye Ndiaye premier ministre bu woon di ngeen ko gën a déglu ci lu yaatu ci kanam tuuti 11h jàpp midi waxtaan bi ci wolof waxtaan ak français gi juróomi waxtu ci ngoon jàpp juróom-benn di waxtu ak Babacar Fall la waxtaan woowe ak premier ministre bu woon Souleymane Ndeye Ndiaye. APR ci Tiwaawan ñoom euh, lu jëm ci audit yi ak wéyal la nuy sàkku ci gouvernement bu Macky Sall yooyu militant APR xamle càkkuteef gi cim ndajeeg délégation directoire nationale bu APR foofee ca Tiwaawan Cheikh Anta Diop. di ab mission ñu ngi wër ci département rawatina nag département bu Tivaouane ñëwoon nag doon na nemmeeku ñi nga xamante ne ñoom ñooy militant APR ñoom ñëpp ñu taxaw wax li nga xamante ne moom mooy seen i jafe-jafe Abdou Mbow moom mooy yor kàdduk ndaw APR ñuy ñëw di waxtaan ak ñoom di leen nemmeeku di déglu seen i xalaat pour mën ko yóggal kilifa gi pour que mu xam ne parti bi nii lay doxee parce que parti boo xamante ni rek da toog naan kilifa gi yaa baax yaa fi gën a juddu yaa fi gën a rafet costume loolu doxalul parti loolu moo sànq ñi nga xamante ni ñoo fi nekkoon ñun nag fas yéene wuñu ki nga xamante ni moo ñu jiite tey ñu nekk di ko wër ci pale ba di ko xalamal ak di ko wax ne ko yaa fi gën dañu koy wax li nga xamante ni moo nekk ci base bi te gis nañ ne lii mu nga xamante ni commencé na ko militant yu APR yi ak ñi nga xamante ni dañoo ñëw ngir jàppale Macky Sall nee nañ de Macky Sall bu muy yox yoxi li nga xamante ne moom la jógtee muy audit yi ngir leeral koppar yi nga xamante ne dañ koo saax-saaxee loolu bu mu ca dellu ginnaaw waa Tivaouane wax nañ ñi ngi ñaan président Macky Sall ak gouvernement bi bu ñu dellu benn yoon ginnaaw ci li nga xamante nii commencé nañ ko du du benn euh, chasse aux sorcières mais nag ku gérer alalu réew mi te def ci naka sudul noonu yoon daf laa war a teg loxo te ku ne xam na ne li ñu fi def ñaaw na ñaawaay goo xamante ni parce que képp koo xamante ni sénégalais teg nga sa bët pasar pasare alal réew mi nga xamante ni nekk nekkoon nañ donc loolu la ñu wax ne président Macky Sall bu mu ci dellu ginnaaw militant APR yi nee nañ nag lii ñu rafetlu la ndaxte base bi nag war nañ leen xamal lépp loo xam ne mi ngi dox ci biir parti bi RFM Thiès Cheikh Anta Diop jërëjëf Cheikh Anta ñu bawoo Tiwaawan jàll euh, romb Louga wutali Ndar euh, foofe yoon ak tukki bu gouvernement bi ci jël président Macky Sall di amal alxamis jile conseil des ministres njëkk bu nuy yaatal ba ci diwaani Sénégal foofee koy dalal ndar ca salle de délibération conseil régional diwaan ga alxamis lay doon boobu conseil des ministre waral service protocole présidence nga woon démb ndar ngir waajal gu mujj gi Mouhamed Nabi Sylla gannaaw jaarut service protocole bu présidence de la république ci njiitu Bruno Diatta autorité locale administrative ak politique yi nekk ci diwaan bi ñoo ngi def seen kéemtalaay kàttan ngir premier conseil des ministres décentralisé bi Macky Sall namm ci dëkk bi mu am ca anam mel sax tax na salle délibération bu conseil régional bu Ndar war a dalal ndaje bu ni mel askan wi bare jàmbat lool te solos conseil des ministre bi war a indi saafara ci seen jafe-jafe yooyu waaye ñi war a dugg ci salle bi doon ñu ñu war a tànn su fekkee gis nañu dayab salle bi ak li nga xamee ni aju na ci bëgg-bëgg ñu bare ngir ñëw ak bëgg-bëgg ñu bare ñu yëngatu ci politique ngir ñëw bokk ci ndaje bu ni mel nañ ci yokk ni am na ay audience yoo xam ne njiitu réew mi Macky Sall dana ko def ci gouvernance mu bokk ci ay organisation professionnelle ay militants ay citoyens ak yenn ci ay jege ñaaleem RFM ci Ndar Géej Mohamed Nabi Sila jërëjëf Mohamed fii ci Ndakaaru Géejewaay nii la luk euh, palak Cheikh Sarr ne maire ab gox ba ba tey ak coow la ca ak conseil bii di Oumar Thiam moo dugaloon clamé gi euh, ci kanam yoon ba niilal gi am moom nag boobaak léegi dogalu cour d'appel bi daa gisul ci ministre intérieur aw doxalin bu dal xelam ci wàllu kon jël matuwaay yeneen ci misaal élection yeneen moo waral lëkkaloom démb ci conférence de presse Oumar Thiam ak Salif Sow. am na ñu ne euh, Mbaye Ndiaye fi mu nekk nii day jàppale Cheikh Sarr waaw day jàppale Cheikh saar looloo tax mu bàyyee ni ko gum ci mairie bi waaye nag ñun tamit du ñu xeex xeex bi ñu xeex def li ñu def ba agsi fii am waaw góoru géejawaay ba pare di seetaan nag euh, lu dul yoon. kon dañuy daal di delloo buum ca booy booy goy rek. waaw mooy mooy seet suñuy conseiller seet suñuy conseiller ñu dellu fañ ko war a delloo jooy ko fañ ko war a jooyee ngir que lii tribunal dogal ñu def ko. géejawaay moom amul maire. loolu loolu loolu ñëpp xam nañ ko loolu ñëpp xam nañ ko. kenn rek moom moo am droit jiite géejawaay tey am plénitude de ses moyens muy le premier adjoint. donc premier adjoint boobu ni ko loi bi santaane nañu ñëw ñu teg ko ci siis bi jox ko moyens yi mu continuer liggéey géejawaay ba. ñuy woote waat pour fal beneen maire bu bees. RFM juróom-ñetti waxtu tegal fukki minutes. pour man RFM mooy rajo bi gën jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. ñu ubbi xët mi nu jagleel wàllum ndox ndox mu sell ci askan wi ak catal na ko noonu waxtaanee PEPAM programme bi loolee tax a jóg sixième revue annuelle gi ñeel boobee mbébét ci wàllu ndox mu sel assainissement na ko noonu ñeel xarnu bi nu ne euh, ci wàllu woowu nag ak ndaje mi ñeel PEPAM waral la yëpp gëstub RFM ci ndox mu sell meeg askan wi ndax ña ngi ci jotam déet ña ci jot ak ñi ko seen lokki gët directeur général SDE ci wàllu woowee objectif di mbébét jëm ci wàllu yokkute ñeel xarala bi ñu ne Sénégal dina ci wàccu ak moom Mamadou Dia euh, nangu nag nay jafe am na moo nekkoon démb gan ak grand ak RFM ak Sénégal nag am nañu taux d'accès quatre-vingt-dix-huit virgule sept pour cent ci monde rural bi ñu ngi ci quatre-vingt virgule un pour cent te yaakaar naa ni Sénégal incha allah dana bokk ci réew yoo xam ni daañu mun a yegg ci objectif du millénaire pour le développement en 2015 loolu lan moo ko waral mooy Sénégal dafa taxawal benn programme d'investissement bu programme eau potable et pour le millénaire et ce programme mu ngi am 677 milliards dont plus de cinquante 54 pour cent euh, jot nañ ko mobiliser ci wàllu ndox ci dëkk yu mag yi ci wàllu ndox ci milieu rural ci wàllu assainissement milieu rural ci wàllu assainissement milieu urbain yaakaar naa ni ci wàllu ndox lu ñu prévoir yëpp suñ ko defee ba mu jeex peppam topp ko saytu ko daañu am accès à l'universel loolu lañ ci liggéey am na revue peppam bu ñu war a def yooyu yëpp daañ ko fi wax nan la Sénégal toppee ba mu yegg foofu donc soo jëlee 53 pays ci Afrique ñaar fukk ak juróom benn ñoom daañu accéder objectif du millénaire pour le développement te Sénégal bokk na ci ci wàllu ndox. njiital SDE Mamadou Dia. askanul Sédhiou nag ñoom ñenn ci ñu bari ci ñoom jot ci ndox moomee jafe na leen lool jigéen ñi rawatina ay kilomètres kilomètres la def ngir am rooti euh, guddomp ci misaal ci commune ba foofee dog-dog ndox yi dafay faral di am léeg muy dem sax ba ñaar ci fan moo waral askan wi sàkku pipaam mu daal di baral jéego yi jëm ci tabaxuk forage Bakary Konté am ndox bu set fii ci diwaanu Sédhiou si yenn gox yi nekk na lu jafe loolu ci population yi euh, ndaxte forage manqué na ci diwaan yu bëri fu mel ni ci Kabada si Sonkodou wala boog si Diassi jigéen ñi di def ay kilomètres yu bëri yore seen paan seen bopp loolu nag pour dem uti ndox bu set fii nag ci commune bu Goudomp population mun nañu des ñaari fan te duñu am ndox loolu nag nekk loo xamante ni ñu koy ñaawlu peppam nag daal di door eh, tabax benn forage wante ndaw yi ñëwoon visiter liggéey boobu ñoom daa ñu ne nguur bi dafa na gaaw ndaxte fu mu nekk ni population yaa ngi si jafe-jafe yi tar wante fu mu nekk ni benn groupe électrogène moo fi nekk di joxe distribuer ndox si yenn gox yi ci Goudomp Souleymane Sidi ji mooy président ndaw yi convention Goudomp. mais ba léegi jafe-jafe ndox bi am am na parce que mun nañ toog benn fan ñaar fan du ñu am ndox même kër yi yi amay ndox yi sax ay deux heures de temps la trois heures de temps ndox bi jeex am na yeneen parties yoo xam ne Goudomp fii ndox sax ñu fay comme par exemple boo jëlee parc yu mel ni Samp Suuf cité millionnaire cité eaux et forêts dañuy am problème ndox parce que. ñaan ne état bi ñu gaaw parce que tout simplement urgence la quoi. parce que Goudomp dafa nekk loo xam ne vingt mille habitants moo fi am te ba léegi amuñu ndox ndox ndox bu sell maanaam ndox euh, l'eau potable. si Sédhiou commune population yi daal di mere loolu SDE ndaxte yenn quartier ba léegi tuyaux yi egguñu foofu ñu ne loolu nag ñu ngi koy réclamer pour mu ñëw nu mu gën a gaawee ndax ñoom tam ñu mën a am ndox bu sell Bakary Konté Sédhiou. rajo Futur Media. Louga naka noonu jafe-jafe ci wàllum ndox askan wa rawatu nañu dëkkee gox bii di quartier Artillerie Nord foofee du ñuy faral di gis ndox mu bari donte branchement SDE nga fa donte it ñoo ngay wéy di fay facture bu nu sañoon daal ab forage beneen ndax foofee gox ba macha allah askan ak yokku da cee gën di am Ibrahima Khalil Sène. métti rek doo pour doo sangu doo ñelaw guddi sam xel du dal mu doo togg lu baax. ndax bëggum dox rek. loolu mooy naqar bi nga xam ne mu ngi ci askan bay yeewoo ci quartier Artillerie Nord fii ci commune bu Louga ñoom ñi nga xam ne ay jamono ñu ngi nii ñoom dañuy rootaani El Hadj Mballo Faye kenn la kuy yeewoo ci quartier Altieri Nord. yenn saa yi bala ñoo am ndox ay 4 heures du matin 3 heures du matin doo nelaw yenn saa yi nga fanaan si robinet ba suba jot doo am ndox. loolu tamit nekk loo xam ne ñaar fukki at si ren maa ngi dëkk fii mais problème boobu moom lay jànkandool suba su nekk ay camion citerne ñoom ñooy wër gox ba di joxe lii di ndox mu sell bu ko defee askan bi ñoom ñëppay wutali camion yooyu ngir mën a am ndox suñu moonte lu ëpp ci njaboot yooyu nekk ci quartier Altieri Nord ñoom de am nañu branchement SDE te ba léegi ñu ngi wéy di jot lii di facture ndox. am nu robinet am nañ compteur ah lépp mi ngi suñuy biir kër te mun ñoo fexe ba am ndox. te weer wu dee ñu fay. te facteurs yi ah dégg la gën a yokku ñun loolu jaaxal nañu. askan yooyu nga xam ne seen ab lim yokku na gannaaw bu leen sàncaan yi wëree ñoom de lu ñuy sàkkoo mooy ñu sampal leen ab forage. waaw ñuy sàkku nag ñu sampal ñu fii forage ndax ñu tàqali koog problème ndox. Ibrahima xalis seen Louga RFM.